Babacar Ndiaye tabaat nañ ko ci ñetteelu mandat ci bopp fédération sénégalaise bu basket ñu ngi ko fal nag gannaaw assemblée générale bi ñu doon amal ñi ki samedi Babacar Ndiaye am na ci lu toll ci juróom-ñeenti fukk ak juróom-ñeenti voix ki nga xam ne nag moo di adversaire am Pathé Keita am na ci lu toll ci ñeent fukki voix ak ñaar. li may wax rek mooy di féliciter di encourager Pathé Keita di woote ñëpp ci jàmm tàllal sama loxo ñëpp pour ñu ànd ñëw liggéey. ñu ma falee légitimité bi ma am moom la laari bi am moom la alefaal bi am moom la El Hadj Sarr bi am parce que ñun ñëpp yéen ko fekkee dañ ñoo falandoo donc mooy équipe bi nga xam ne nii pour ñeenti at yi ñëw moom la famille basket wóolu pour dénk leen basket bi donc ñu leen di wax aussi que la fédération tàll na loxoom ñëpp pour ñu liggéey pour le développement de notre basket. gannaaw bañ ko tabbee nag Babacar Ndiaye mu ngi jublu ci li nga xam ne moo di ay projet am je pense que le dix bu mu juumul si lañu ñu war a dugg commencé regroupement si la ñu war a dugg regroupement externe euh, loolu moom mooy premier urgence bi euh, beneen urgence bi aussi comme ni ngeen ko xamee il faut ñu yeggali championnat bi mu teel a pare pour ñu mën a concentrer wu si compétition internationale yi organiser euh, tournoi national des jeunes bi nga xam ne nii léegi waxtaan naa see góor gi si ñee mu d'accord si pour ñu def ko au mois d'août mu doonoon nag ñaari candidat yi nga xam ne ñoo sampoon seen dëng ñu tegaale ci li nga xam ne moo di comité directeur bi nga xam ne am na ci lu toll ci fanweeri membre ak benn fanweer yi nag ñu ngi ànd ak ki nga xam ne moo di président bi